Abdourahmane di membre ci coordination boobu noonu moom incha allahu moom la ñuy jox kàddu gi dana waxtaan ak ñun ci objectif yi ak programme campagne levée de fonds yi nga xam ne fonds bi envisagé na ko lu ko dalee ci 17 février niki dému ñun dañuy wax tey 18 février ba trente mai suma juumul incha allahu rabbal alamin dana ci waxtaan ci ñun waaye projet ciblé yi nga xam ne am nañ ko incha allah pour deux mille vingt quatre deux mille vingt cinq ak organisation bi ak la ca aju kon Seydi Abdourahmane Ndaw kaddu gaa ngi noonu. من ذا الذي ما فاقت ومن له الحسنى فقد محمد الهادي الذي عليه جبريل هبت محمد البشر الحمد لله حميتي السلام عليكم يا شيخ رحمة الله خيرا الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ني سانت يالا بو باخ دي جولي تي يونت بي عليه الصلاه والسلام di nuyu mbooloo mi fi teew euh, di nuyu euh, alxalifa xadimul umma cheikh Mohamadul Mahi Ibrahima Niass ci teg imam cheikh ci Ahmed Tijani Aliou Cissé ci teg cheikh Mohamadul Mahi Aliou Cissé imam cheikh Mohamadul Mahi Aliou Cissé ak mboolem waa xadara bi yépp di leen nuyu kenn ku nekk ci yéen turam ak santam ne li ñu dajale fii du dara lu dul waxtaane li nga xam ne képp ku ko yor dina toog bés ñu wax la laaj la nga war ci wax mooy fon Medina Baye fond nag buñ ko tuddee ci xadara bu tol ni Medina Baye laaj na parfois ñu toog seetantal suñu bopp leeral yu bari loolu nag dafay tax transparence am dafay tax fi ngeen dugal seen xaalis ngeen xam ko dafay tax ngeen xam liggéey bu mucc ayib bi nga xam ne fond bi def na ko te ñu bari réeree ko dafay baax ci loolu ñu xam ko Seydi Mouhammad leeral na ko bu baax a baax ay réalisation yu mucc ayib yuñ mën a saluer bi ci njëkk école arabe bi nga xam ni def nañ fa ay classe bâtiment bu mucc ayib ba nga xam ne xool nañ seet nañ seetantal xam ni bâtiment booba moo fa gën ci bâtiment yi fa sampu ñu inauguré ko taxawal carrelage bu ins bu bu zawiya maam alaaji Abdoulaye Niass bi te ma jiite ko xaalis bi sama loxo lañ ko teg ak des preuves yu leer ak gàmmu yi nga xam ne mooy am fii ci Medina Baye ak ci Taïba Niassène ak toolu baay ak social bi nga xam ne ñu ngi koy def ci njabootu Maulana Cheikh Ibrahim maanaam wàllu faj ak wàllu jàppale ak wàllu ndimbal loolu yëpp ñu ngi koy def kon nag mu nga gis ni fond la boo xam ne taalibe yi ñoo ko moom sëriñ si ñoo ko moom te war nañ ko jàppale mu gën a taxaw comme ni ko Seydi Aliou waxee bismillah kon nag manuyu Seydi Lamine Lo suñu cordonateur mi nga xam ne moo teew fii di ko nuyu di ko wax ne ñu ngi tàmbali liggéey bi ñu ngi koy ñaan ndigal ci loolu euh, ginnaaw projet yi nga xam ne fond bi réalisé na ko ak investissement yi ak jàppale bi muy jàppale nit ñu feebar ñi ñu ngi leen di wax ne fond Médina Baye dafa amoon ñetti stratégie de financement yoo xam ne nii maanaam ñetti pàcc yoo xam ne nii ci la bëggoon a doxalee ni muy amee xaalis pàcc bu njëkk bi mooy mooy phase d'amorce bi phase boo xam ne moom la njëkkee phase boobu tekkiwut lu dul jamono biñ koy samp te Cheikh Ahmed Tidiane al Khalifa joxe woon ci ndigal duñ ci ñëw parce que Seydi Aliou leeral na jeunesse boobu yëpp. li ñu soxla woon mooy un milliard jamono boobu un milliard bi ñu ngi ko doon dajale amoon nañ ci satisfaction à quatre vingt quatorze pour cent parce que dajale woon dajale woon nañ neuf cent cinquante quatre millions kon xam nga ni objectif boobu atteindre woon nañ ko phase d'amorce bi ñu dellu ci beneen phase bi nga xam ne moo ñu fi dajale tey mooy phase de consolidation bi nga xam ne bëgg nañ am ci suñu kees trois à cinq milliards yoo xam ne day nekk ci fonds Médina Baye pour projet yooyu yëpp ñu mën ko réaliser ak boole kook mbooleem faj mi mbooleem Médina Baye taaral ko defar ko ba mu baax rafetal ko waaye loolu pour ñu am ko il faut que ngeen xam fi xaalis bi jaar ba pare am kóolute pour tàllalaat ñu loxo ñu tàllalaat leen loxo ngeen xam ni dañuy liggéey rek pour askan wi phase boobu nag moo ñu fi dajale dinañ ci ñëw beneen phase bi bu mujj bi nga xam ne mooy daj dëpp gi mooy phase boo xam ne bëgg nañu am dix milliards phase boobu noonu mooy phase bi gën a mag yeggaguñ ci waaye bi ñu fi dajale nag mooy phase de consolidation bi nga xam ni mbooleem projet yu bëri dinañ ko mën a def muy projet d'investissement muy projet gàmmu yi muy projet Euh, yi nga xam ne ay infrastructure lañ maanaam ay tabax ak i bâtiment ak i yeesal mbedd yi ak yooyu yooyu yëpp bu fekkente ne am nañ moyen yooyu bu soobee yàlla incha allah dinañ ko réaliser te bu boobaa di ngeen kontaan ñun it danañ ko parce que ñun ñëpp taalibe lañ euh, li nga xam ne wax naa ko léegi mooy am na ba pare mooy réaliser nañ suñu objectif phase d'amorce bi à quatre vingt pour cent parce que amoon nañ neuf cent cinquante yoo xam ne mu ngi woon ci compte bi ci kees yi te def nañ cee defa defa def ba ñu ngi toll foo xam ne nag soxlawaat nañ besoin pour yeneen projet yi li nga xam ne moo ñu téye woon ba nga xam ne jotuñ ko matal à cent pour cent loolu dañoo commencé fond bi daal di dugg ci benn phase boo xam ne Sénégal ñëpp ko traversé mën naa wax ni monde bi ñëpp traversé mooy phase Covid 19 bi nga xam ne moom la ñu yàlla indiloon muy mbas moo xam ne moo téye bari ci kaw loolu sax ci mbas moomu sax taxul fond bi baisser les bras commencé woon ne di jàppale les familles démunies comme ni ko Cheikh Mouhamad Gueye waxee dugg ci ba nga xam ne. ñu ci bari am nañ ci satisfaction beneen bi ñu ngi jëm ci euh, li ñu fi dajale mooy phase deux bi ma xam bi nga xam ni wax naa leen ko maanaam am benn trois à cinq milliards boo xam ne vingt pour cent yi dañ koy jël loolu buñ ko dajalee vingt pour cent yi dañ koy jël def ko ci gàmmu yi maanaam addiye cheyfiyeeg yooyu yëpp nga xam ni gàmmu gi bu ñu ne tak rek kenn du ñaani fenn lenn dinañ mën a taxawal gàmmu gi bu ba Niassène bu Medina Baye ba nga xam ni lu bëri fond bi dina ko mën a appuyer ba nga xam ni lu bëri duñ ko jéggaani fenn couverture médiatique beeg yooyu yëpp dafa ëmb ci biir daf ko daf ko ëmbaale ci kaw 3 à 5 milliards yooyu nga xam ni moom la ñu bëgg a dajale cinquante pour cent yooyu dañ koo bëgg a dugal ci projet d'infrastructure yu Medina Baye ak book xadara bi moo xam toolu Baye la moo xam Taïba Niassène la moo xam dellu koosi la moo xam tamit Medina Baye gii nga xam ni moom lañu nekk te ñu war a yeesal lu bari loo xam ne bi ko fi Baye defee yàgg na te yeesaluñ ko booba léegi kon nag ñu xam ne ñu ngi jëm ci phase bi gën a mag wala phase bu mag bu topp ci bi nga xam ne phase bu mag bu topp ci bi nga xam ni moom lañ amoon ba réaliser nañ ko am nañ ci satisfaction à cent pour cent à quatre vingt quatorze pour cent du moins mën naa ne cent pour cent la donc pour cent yooyu jëm ci gàmmu gi cinquante pour cent yi jëm ci infrastructure yi mais trente pour cent yi comme ni ñu ko xalif bi digalee Cheikh Mamadoul yi loolu dafay jëm ci projet d'investissement investissement nag kii di investissement dina wax ci wàllu xëyu ndaw yi parce que buñ investiré mu jur dara duñ ko jël di ko dugalaat feneen wala suñu poche non dañ koy jël fexe ba créer ci des emplois fexe ba nga xam ne dinañ teg loo xam ne dina pérenne pour ëllëg suñuy doom ak suñuy sët wala yenn taalibe yi ak yenn femmes yi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw wala financé ci yenn mbootaay yeeg yooyu phase boobu nag phase bu am solo la phase d'investissement la waaye nag ànd ak lépp nag xadara bi yépp maa ngi leen di woo di leen bàyyiloo xel ni yooyu ma wax phase de consolidation boobu ma wax te fond bi war ci jëm duñ ko def mukk sans seen ndimbal duñ ci ca yegg mukk sans ndimbalu xadara bi xadara bi nag ni mu war a doxee gis nga kenn ku ci nekk sa kër yaa ko war a defar yaa ko war a tabax ba pare doog ce xaar keneen ci biti képp kuy yaroo ci kër juddoo fa nekk fa taaw wala nekk fa doom ci benn kër buggoo keneen jóge feneen ñëw di la ko defaral gàcce ci yow te nga mën ko defaral lima ci bëgg a wax mooy li ma bëgg a wax ci loolu mooy ñun ci suñu wàllu bopp ñun ay taalibe lañ ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi sopp soqeekoo ci mawlaana Madina Medina mawlaana Cheikh Ibrahim ak fu ñu mënti nekk taalibe la ñuy doon taalibe la ñu nekk kon nag suñu biir kër maanaam suñu biir kër sëriñ ñoo ko mën a taaral ñoo ko mën a defaral yàlla nag jox nañu lim ñu jox mooy fond Medina Baye te Baye da koo tracé Sidi Ahmad Tijani al Khalifa bi mu ñëwee gën ko suqali ki fi nekk Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass mi bindal ñu ñun autorisation jox ñu ci ndigal pour ñu wéyal liggéey boobu pour ñu wéyal ko nag il faut ngeen taxaw ci loolu ngeen dimbale ñu day sonné ngeen dimbale ni ngeen ñuy dimbalee mooy ñun ci suñu bopp ci ndimbal loolu ci lañ bokk parce que Fonds Médina baay bi ñi fi nekk ñëpp ñu ngi génnee seen alal ñi ciy liggéey nag laa wax ñu ngi génnee seen alal di ko def ñu ngi ci joxe seen participation te ñu ngi koy noté yéen it bu leen des ginnaaw ci loolu waxuma ñi nekk ci saal bi rek waaye xadara bi yëpp ak may dégg parce que en direct la nekk fépp fépp foo xam ne taalibe nekk na fa ci biir àdduna bi yëpp nag laay wax te ñu ngi may dégg na ngeen ñëw ñu fexe ba keesu Fonds dina baay bi am cinq milliards yi nga xam ni moom la ñu soxla cinq milliards yooyu niñ koy amee bu ngeen ñu wóoloo te tam maa ngi wax ne amuleen ngant ci wóoluñu benn ngant amuleen ko ci wóoluñu képp kuy taalibe amoo ngant pour wóolu Fonds dina Baye parce que li waral loolu gis ngeen réalisation yi ñu def zawiya maam Alaaji Abdoulaye Niass bi dem xool ni mu taaroo karo yu mucc ay fond bee ko génnee joxe fay ko bam jeex tàkk fay ouvrier yi fay ciment bi fay lépp fon bi nag ci li muy def dafay leer ndax li waral loolu alalu askan alalu taalibe def ko fu leer moo gën balaa moo génnee dara il faut mu leer te man dama ci ànd parce que ëllëg mun nañ la laaj lii lu tax te fond bi noonu lay doxale yenn saa yi mën na yéex waaye transparence moo gën ci lépp loo gis parce que ëllëg a tax parce que suñuy doom ëllëg moo tax beneen bi mooy suñu bëggee loolu réalisé wu xool leen réalisation yuñ jot a def avec le peu peu de moyens qu'on million xam ngeen ni mënta defar dara waaye korkoral nañ ci jël ci alal ji yóbbu banque pour mu jur sept pour cent ñu boole loolu yépp muy 900 million ñu koy def ci xadara bi am na ci yoo xam ne ñu ngi koy def ci sutura parce que kilifa du feebar nga faj ko ba pare di ko wax ndax njabootam a tax loolu yépp nañ ko bàyyi xel te xam ni fond bi ku ci def sa dërëm perto ko levier la boo xam ne ci pay bi moo war a financer pay bi moo war a taxawal pay bi te moo ko war a jox parce que structuré na te ci ñi ci nekk am nañ personnalité am nañ dignité te am na yoo xam ne ñu ngi koy bañ te itam beneen affaire bi dénk ko wóolu de baax na waaye dénk ko amit baax na parce que ñi ci nekk nii ñëpp c'est des cadres loolu dafa am solo dinaa ko wax parce lu leer la lu dëgg la te lu ma gis la beneen bi mooy ci kanam tuuti rek buñ paree conférence de presse bi rek man ak Seydi Aline Diop dañuy dem Alfayda pour ubbi antenne bi nit ñi mën a woote pour ñu mën a commencer lever de fonds bi nga xam ne ñu ngi koy ko ñu ngi ko war a def lii nii biñ ko jàppee képp kuy képp kuy kilifa ci dëkk bi yëgal naa la ko ñaan la ci sa ndigal am ci sa bénédiction kon nag bala maa tëj maa ngi dugg ci benn exemple de projet boo xam ne ci trois à cinq milliards yi ñu bëgg a dajale dama ci jukki benn rek projet boo xam ne pour nit ñi bàyyi ko xel te ñu xam ne moom la ñuy njëkkee muy institut islamique El Hadji Abdoulaye Niass bii nga xam ne moo fi nekk dëgg la fond bi nag jot na faa def ay classes yu mucc ayib à hauteur de soixante quinze millions mais gis nga loolu boo xoolee fii Medina ku nekk jóg na di ci jéem a def ay classe xam nga loolu li muy li muy tekki mooy lan ku nekk dem nga di fa tabax ay classe jaawoo ma nga fa kii ma nga fa kële ma nga fa ku nekk ma nga fa li muy tekki mooy bëgg nañoo def wallahi ku dem foofu gis ndox mi nam mel nga dem ci beneen institut islamique bu beneen kër diine di nga xam ne baay lii yeewul yelloolu ko yelloowu ko soo demee ndox maa nga fa day taa at ba at soo demee ndox maa nga fa dafay taa at ba at soo demee bâtiment yaa ngi xomaag soo demee bâtiment yaa ngi ñuul soo demee am na yoo xam ne délabré na completement waaye ñi nga xam ne ñi ngi def pàcc par pàcc suñu dajaloo woon démolir ko complètement raser bâtiment yu bon yu complètement taxawal ko ba nga xam ne lii dina mucc ayib mu méngoo ak jamono méngoog Maulana Cheikh Ibrahim parce que bàyyi na fi xam-xam bàyyi na fi institut góor dëgg ngi noonu Maulana Cheikh Ibrahim Niass kenn du moom nañ fexe ñu nit du ñu mel neneen ñu nit ni ñuy ne neneen lim fi bàyyi nañ ko pérenniser lim fi bàyyi nañ ko téye niñ koy téyee nag mooy jamono bi amut benn jaamu yàlla bu gën a màgg génnee sa alal def ma wax leen ni julli yeeg jaamu yàlla yeeg naafila yeeg yooyu ñun def nañ ko màkk ba sonn waaye biñ ñëwee fii benn jaamu yàlla képp moo ñu dese muy ñuqi suñu alal def ko ci baay te nañ ko def te duñ ko rëccu te fon bi levier la boo xam ne boo xam ne mën nga cee jaamu yàlla bu baax a baax baax a baax a baax institut islamique boobu may tëjee liñ ci bëgg a def benn la rek ci projet yi mais liñ ci bëgg a def mooy defaraat ko ba nga xam ni ndox ma dootu fa amati def ci ay grille avaloir raser mur yi defar ko raser bâtiment yi bon yi defaraat bâtiment R plus 1 yu baax def ci ay logement yoo xam ne égyptien yi nga xam ne Maulana Cheikh Ibrahim bu ñu ñëwee euh, bu ñu jógee Égypte bu ñëwee duñ am fu ñu loger dañ leen di ventiler ci kër yi kenn ngi nii di Mohammed sama kër la nekk c'est des professeurs yoo xam ne Égypte lañ jógee bu ñëwee fii duñ am sax fu ñu daal nañ bàyyi xel ci loolu waaw mu ngi noonu kon nag bu ngeen ma gëmee gëm gëm leen fond bi ngeen ñëw jàppale ma ci fond bi bañ am cinq milliards yi nga xam ne moom lañ soxla incha allahu taala wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum ci kàddu yi nga xam ne kontaan nañ trop hmm, ko dégg nga xam ne taalibe bu gëm PM la ittewoo PM waaye ittewoo lépp lu baax loo xamante ni tey bi war na bu am rek bëgg na cee bokk ak itam gëm liggéey boo xamante ni dafay tegu ci transparence moo waral lu tax mu rejoindre fond bi bañ ko dégg bañ ko dénkee liggéeyu zawiya cheikh El Hadj Abdallahi El Kabir muy maam mu xam ne gëm ne fondation Fonds Medina Baye li muy oote loolu moo nekk ci ñoom ne pays bi moo ko moom xadara bee ko moom activité xadara bi moo ko moom mu bind fondation Fonds Medina Baye wax ko fi liggéey bi toll ak lim soxla ci ñoom ak lim xaar ci ñoom waaye façon bi nga xam ne moom la fond bi traité demande boobu noonu ak niñ def. ba satisfaire besoin bi te génnewuñ ay xaalis muy dugg fi wala muy jaar fii loolu vraiment impressionné ko ba nga xam ne daf ne moom wax dëgg fa yàlla lu ko itteel mooy paye baay bi lu ko itteel mooy liggéeyal baay kon bu gisee structure bu organiser ni fondation Fonds Medina Baye dana bàyyi lépp lu mu doon def ñëw ànd ak ñoom ñu bokk liggéeyal Mawlana Cheikh al Islam Hadj Ibrahim من ذا الذي ما فاقت ومن له الحسنى فقد محمد الهادي الذي عليه جبور الهبت محمد بشر الحمد لله حميتي السلام عليكم من شيخ الحمد لله فايدة يا باشا بل هو كالياقوت بين الحجر